salaamaaleykum amis fidèles téléspectateurs de la Proxi TV télé bi leen jege ba noppi di leen won seen bopp amaan mbégte contentement bu mag a mag nar ànd ak yéen si seen spécial ndogu Mamy Cruz bi nga xamante ni moom la organisé fii ah, ci Mame Dior nee naa leen tey ah, gis nañ fi loo xamante ni lu la ah, dox nañ wër nañ fu ne mais gisuñu mosuñoo gis lu mel nii bu ko defee rek sama caméraman danga may daal di topp ma daal di ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon si spécial ndogu Mamy Cruz bi topp ma rek ma daal di jël li nga def ci noir lan la <laughs> waaw def nii rek ñëw jàppale suñu copine. mbaa doo saxee sax xeesa. Ah? woo yàlla tere fa. waaw suñu teewaay nag euh, tey kii woote dafa nekk koo xam ne suñu nit la suñu xarit la xam nga muy jigéen aussi nekk ci aar bi bu ko neexoon mu am ñoo xam ne da leen di jël di diiranteeg ñoom mbagg et tout bien vrai que bokkuñu domaine bi ñuy def mais xam nga sama gaañ la sama xarit la te aussi fekk si na ma foo xam ne nii xalaatuma woon ne dina ma fekk si donc man su ma wooyee mënuma lu dul ñëw wuyu si ko rek waaw parce sama waay la. mami franchement nit ku baax la man ba ñu xamante yàgg na gaa du fan ànduñu chaque jour genre comme ni ko nit ñi di gisee ci réseaux sociaux yeeg affaire yooyu noonu et tout mais sama waay la parce que dañuy waxtaan dañuy dañuy dañuy échanger et tout donc nit ku baax la quoi nit ku baax la nit ku. nit ku am yar am teggin am sutura aussi macha allah donc voilà quoi nit ku nit ku nit ku. yéen ñaar sax da ngeen xaw a niru. la ñuy wax nag looloo tax sax nag rapprochement bi looloo tax mu am ñu naan ni da ngeen duroo yow ak Mamy Cruz ñu dem ba ba xamante di daje ci ay milieu dem ba ba ba xamante am benn amitié bi commencé di ko dund tu tout voilà mais sama nit la nit ku baax la franchement. waaw dëgg la sunu sœur Mamy Cruz moo ñu ko jaral rek. waaw moom moom lu mu bëgg suba ba dañ siy daw. Ah, pourquoi waaw comme ni ngeen ko gisee rek. ñu ngi ci bind def tâche. def tâche tamit.

léegi après si lañu organiser woo ñun wa membre def tâche yi ñun ñi si lañ organisé woo né pourquoi pas ñu défer ndogu par la suite si lañ défer ndogu japp ci le set bi def ci lu dóob lii gis ngeen ko. wa mami mom li ma leen mën wax ci mom bëri na bëriwul parce que suñuy wax ci mom tay duñ fi joggé baxna na yaatu na woyof na wàcce na boppam su ko neexon tay muy jaay star mais gis nga ko ni mu mel ak ñun daf ñoo jappé comme bopam ak ci koñ bi yëpp bo xoolee témoignage bi yëpp ñëpp lu baax la ñuy wax ci moom. ñun daal ñu ngi ci ginnaawam te lu mu bëgg soo ba nga jot incha allah nañ topp ci ginnaawam. boo gisee ñu def ko c'est que tamit loolu lu si gën a tax pour suñu artiste moom la ñu bokkal koñ moom mooy Mamy Cruz foog ñu bëgg nañ tey turam foo tourné di ko dégg maanaam te aussi ñun dañ koy jàppale koñ bi ñu ñëpp ñoo ko bokk wax la Mamy Cruz lu baax rek la lay aussi xam ma la waaw ñun moom dañ koy jàppale rek ci kaw te kanam ah Mamy Cruz moom xam naa bi nga ko doon wax tey fii tey fi ma taxaw du ma fa jógee waaw parce que lu ñëpp di wax ak laay wax bu bonoon tey dooñu gis ñu taxaw fi baax ak lu mel ak ñun moo tax tey ñu taxaw di ko jàppale waaw ay sœur ay nañ lañ sœur loo kase waaw mami de day sunu nit di sunu wóllëre ci suñu naataangoo artiste teg si tamit di rakk ci man mu jox ma cër boobu euh, ba ma gisee ne affaire yi tàmbali na dañ koy def xawoon nañ jagadi loolu nag mais dañ ne dañuy teew parce que nit moom bu la yëgee rek yëg na la te bu la fonkee fonk na la te nit tamit amul lu dul bësam ñu mu nekk tamit ci loo xam ne nii lu yàlla gërëm la muy joxe ñam te joxe ñam boobu tey ñun ñëpp mënoon nañ ko woote yàlla dogal na nag waa moom ak waa timam ñu ne dañ koy initier ñu ne ah comme que Kër Massar lañ dëkk sorewuñu dañuy jaayante ñëw teew ci jàppale ko ci taxaw taxawu jàppale ko ci jëf ji ndax yool bi ñun ñëpp mën nañ cee am njëriñ quoi waaw nit ku baax la nit ku oyof la xamante nañ lu yàgg nag mais man damay jàpp nit ci say jëf waaw du loolu ndax tey ñu ñëpp ay artistes lañ ku nekk am na égo booy amee tout mais yàlla dogal na saa yu ma ko woowee ci sama mbir wala saa yëgee sax sama mbir da ciy teew da ciy teew ba pare ñëw assister ma xam nga encouragé ma te loolu yombul ci ay nit yoo xam ne ñoo bokk lu ñuy def amul animosité nit kese la yaay faal mu nekk ku baax comme ni ma waxee di rakk ci ma nit ndax cër boobu la ma jox di ma laaj conseil di ma di ma déglu des fois ma sañ koo wàññi ci ay mbir te loolu yombul ci jamono bi nekk. merci beaucoup jaajëf. Euh, dina ñëw jàppale mami ci ndogu bi euh, pour ñu mën a jàppale ñëw di doole yi quoi. ah métti woon na kay parce que euh, xam nga joxe ndogu moom mét jë kiiwul yombul waaw. mami ah nit ku baax la yaay fa la yëg na ñëpp parce que moom day bàyyi ay yittam di. dox si yitte keneen waaw loolu rek moo lay won ne moom ku baax la ko waaw fan nga jàngee defar kafe waaw mais fii rek sama waa ji moom ko jàngal. waaw lii moom xam nga liñ ci mën a wax bëri na quoi bu ñu ko doon fii ba suba du jeex parce que mami moom suñu sista la xam nga donc bu wootee dañ koy jàppale surtout lu mu def nii dafa dafa dafa rafet tey jii bu ñu soñoon moom chaque jour dañ koy def mais xam nga rek dañuy dañuy tànn benn bés bu spécial puisque xam nga lu baax moom mënoo ko def chaque jour mais dañuy jéem rek mami moom. nit la boo xamante ni xam nga mooy loolu quoi elle est façon elle est courtoise donc bu dañ koy taxaw waaw ah waaw ñun kay ñoo fii nii xaaral ñu rek yeneen yu gën a yi dàq ndog yooyu kii dina ñëw incha allah. Mm-hmm. mami tey suñu dee wax ci moom tey duñ fi jóge maanaam duñ fi jóge. mais day am loo xamante koy dagg rek dama koy dagg rek. waaw maam Marème moom wax dëgg yàlla lii moom da koo mérité. te lii moom wax dëgg yàlla du du ma nee gulet ñun ñii ay yaayam lu ne la ñuy defal. kon mom manam su defé waxé day def li dako dako wacc dal wa daal koy ñaanal li chaque année mu koy dem diko mën bañ koy tuddé fenen fenen ma ngi koy ñaanal li mu sumbu yalla na ko yalla def mu am ci ndam mu dugg ci bismillahir rahmanir rahim jeexew ci alhamdullahi rabbil alamin wa dañu mënul wax nak ay saraxu leen lañu waaw ma leen di TV di leen dalal na leen ex ngeen ak jamm waaw waaw waaw nice ndax mami moom ko gis xamni xam mami xam euh, yag top mami topp ko ci taalibe topp ko ci bamba topp ko ci yeneen sound yeneen sound yi nga xam ne Mamy nit ku social la moom Mamy ci social lay yëngatu de récemment projet bi mujjee yëngatu ci taalibe yi la ko jagleen def ay affaires yooyu kon donc xam na ni Mamy c'est pas la première fois mu yëngatu dafa nekk loolu dafa répété rek dafa répété rek ci affaire bu baax baax xam ne kon donc affaire bi nice na gaa yi teewee nañ ko l'essentiel est mooy lépp gars yi ñoo doon teewee nice nice al kon chapeau à Mamy chapeau à Def Tasse Sapo ak Deftas mooy Deftas mooy club bi fans club bi nekk si ginnaaw mami ñoom ñi nga xam ñoo yor organisation bi ñoo organisé li lépp suñu genre yëpp dañoo ñëw rek ñun fekkee ñëw fekkee lii defuñu fi dara presque mais waa Deftas franchement ñoom ñoo ñëw porté Sapo bi gérer affaire yi mu nice xaar leen mami si 2021 bi si ay projet yu dóob yu dóob bu wax day yàq nag mais dañuy xaar mami si ay affaire yu dóob affaire yi ñoo gis affaire yi dugg leen si Instagram bi YouTube bi follow ko si bagage gis ngeen ay bagage yu mais xaaral a garaaw duma len berté tax na 2021 bi mamee ko mom loolu amul wax 2021 bi 2021 mamé la xala nga ci affaire nice di len remercier yéen approche TV ndax ni ngeen def Kër sar nice na téwal teewal sar sa sunu genre ñun ñëpp na leen jox bu ñun yéen la nit tiitaroo quoi parce que ñun Kër sar la am si lu lu génnee Kër sar rek na ci and franchement nice na ko merci ci dama naan ku doon laajte Faly Ngoye ngi l'international bami Cruz ma ngi lay nuyu delloo ziar bu wér ma yaa ngi am jamm ma ngi am jamm sante alhamdulilah di len robu baxna waaw waaw gis nga sama mag moo fi jaar mbisin si sa door moo si moo jaar ci lii baaxee ma ko daal pour euh, ndogu bi. mais xam naa ma ni danga ma koy baaxee bu may def. du dara en tout cas kontaan naa si yéen parce que ngeen déplacé wu ñëw c' était pas évident puisque moo ngi noonu daal mais euh, jot amul mais def ngeen ko et puis euh, mu nekk loo xam te ne lu nice la te ma leen si remercier aussi waaw parce que voilà. tay <laughs> man ma len dalal quoi mais gis na dama len dalal sax ba ba lek ngeen musu man kay dama lek lek lek <laughs> eh, ba kan def yu fi sirir xawma yu fi jola waaw kon alhamdulilah kon alhamdulilah. Aïcha dañuy bal rek wax ñu naka nga préparer li nga xam moy spécial ndogu bi ak kan mo la ko xelal wala sa initiative bop nga jël def ko. en fait euh, tim def tâche yi bëri won na et tout mais daf si am euh, ben boy bo xam tane elle s'appelle Tima. Tima donc euh, Tima modèle jël initiative bu def euh, créer groupe Def Tâche ànd seek ñoom euh, fallu ak sama ñaari cousin yi Alpha ak si Sidé gars yi dëkk ci koñ bi boy donc ñu def sen team bo xamantane franchement bi ñuy commencé xalaatuma ne dina yegg fi quoi parce que xam nga euh nañu def yomb na mais bu bësu def joté do gis kenn. mais ñoom dëggal nañ ne li newoon ci seen xol te ñu bëgg ko moom lañ bëgg a jëmmal man dama ñëw rek yokk ci sama touche mais presque ñoom ñoo def yëpp waaw ak ñi nga xamantane tamit jàpp nañ ci parce que seetaanuñ ñu benn yoon ku si mel ni Mohamed Bilal waaw il a beaucoup fait pour nous aussi mais mais ma famille parce que duma limee damay juum euh, aussi euh, sama waa cité parce que boo xoolee Nous euh, ñëw fi def fi ndogu wax bruit et tout ça teewul ñoom dañu donc c'est euh, quelque chose à saluer ak sama groupe def tâche band bi nga lu donc ñoom jàpp nañ bu baax live fashion euh, bamba mi nga xamante ne moom moom serlu di neex parfum bàyyiwuma kenn waaw ñoom nañ et franchement Euh, ça a été quelque chose boo xamante ne lu lu lu nice la parce que gisal ngeen ko seen bopp euh, man ma di def sax di wax franchement musuma organiser ndogu parce que dama jàpp ne booy defal yàlla moom jarul woo ay caméra ak yooyu quoi mais bon dañu nekk si dëkk boo xamante ne tey boo nekkee nit ku siiw boo wootee ñu wuy si la boo wootewul ñu wuy ci la donc loolu j'espère que ne que nit yi dinañ ko comprendre noonu donc may remercier ñëpp surtout Tima ak waa tim bi ñoom euh, Alpha ñoom Fallou ak yeneen gars yëpp maa ngi leen di ziar di leen béggee parce que ay boy yu baax lañ fii laa leen ñoom ils ont grandi devant mois quoi donc tey bu ñu ñëwee bay jàpp si sama liggéey c'est parce que lu ñu yëg la lu ñu sentir la c'est c'est la famille quoi. Ah, dañuy gis que ni Mamy Cruz moom dafa tàmm di jàpp ci li nga xamante ni mooy social ah, gis nañ ni lu yàggul dara yaa ngi doon jàppale ñi nga xamante ni mooy taalibe yi ah, lan moo lay poussé ci loolu. waaw mais àddina loo gis rek dimbalante parce que ñun la voix des sans voix.

buñ ci def ak mën-mën ak euh, maanaam alal ci boppam wala matériel dina am ñi nga xamante ne ñoom ci seen i jëmu bopp ñoo si jël seen alal ak seen lépp def ko si donc man mun naa ne affaire bi du man mais ñoom la quoi nit yi la ñoo ñoo jël affaire bi def ko waaw parce que benn lam du yëngatu donc may remercier waat bu baax sama présidente bu ñaawal bi Tima. Hmm? ak waa Deftage team ñoom daal mention spéciale à eux. est-ce que est-ce que Mamy Cruz tey mën euh, mën nañ koo xaar ci leneen li nga xamante ni du bokk ak spécial ndogu am na yeneen jéego yoo xamante ni yaa ngi koy waajal war ko def wale waaw waaw incha allah xam nga man nag du may lu may def rek di ko wane waaw ah, mais li am solo daal mooy nañ def moom am solo pour man. Euh, mais sama mbébét daal mooy comme li ma la wax rek lépp loo xamante ne man mëne naa ko wala sama voix man ma fa yeggale Euh, message yu ma parce que comme nous sommes des porteurs de voix nous li am solo rek sommes, di dénoncer aussi di di jappalé quoi voilà. Mamy Cruz ñu lay remercier bu baaxa man may remercier wa proxy ñi déplacer wu nous sommes, sonu bay bëgg dé remercier na bu baax. man ah, mais mais mais mais na ak remercier aussi Iba Iba donc Iba ak Iba nous nous ñu japp café gi xam nga nek samay sama coiffeur. donc euh, ils ont voilà def nañ lépp daal ak waa Kopar mi nga xamante ne Kopar Express ñoom tamit ñëw nañ def seen déplacement def seen doole tamit en tout cas kontaan naa si ñëpp. waaw waaw waaw comme ñi ma wax rek. waaw la surtout Ndoye traiteur. waaw tey ton yu saf yeeg omelette yu saf yeeg affaire yu saf yëpp moom moo ko fi def waaw laay traiteur lay lay laay lay lay fashion aussi moom aussi jàpp na si bu baax ay ñoom Mohamed Bilal Bamba Sena ah Bamba Sena waruma ko fàtte. waaw jàpp na si bu baax jàpp si organisation bi ñoom Iba donc euh, sama sama team def tâche team bi ak def tâche bond bi donc euh, ak sama famille waa COPAR ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar ay ca mbokk yi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun euh, fii sur la Proxi TV comme ni ma koy waxee tele bi nga xam ne daa jege askan bi ba noppi di leen won seen bopp euh, joolaa bu rafet ngeen àndaloon ngeen gën ko xam si Zara si seen spécial ndog bi nga xamante ni Mamy Cruz moom la jagleeloon waa Kër Massar mën naa wax ni sax waa àdduna bi yëpp euh, di leen jox dig daje xam naa ci beneen ndogu wala sax si beneen événement buy xewaat d'ici là portez-vous bien Proxi TV mi ngi ñëwaat ak yeneen i